ñu jall si jëkër ak jabar ji li nga xamanté ñoo nekk ki di Nabou Fall ak ki di euh, Bakir ndax mu nañ ni refusé nañ nak may euh, ki di euh, khadi pour mu dem ak sey ki nga xamanté mo nekk Tidiane ndax c'est normal nak da so xolé yaay yu bëri wala papa yu bëri ñom xaalis ak li ñu xol ba tax nak ki di Nabou Fall ak ki nga xamanté mo nekk Bakir ñom xaalis ak li ñu xol si kiri di Ousseynou ba tax nak nangu ñoo jël seen dom di may ki di Tidiane sama gaay lu injuste li ñu def ndax yaakaar naa ñaa bëggante da nga wara may ñu sey si ñom niñ ko bëggé ci niñ ko soppé ba tax nak sey bi mo ngi dess nak ci loxo li di wajuru xadi bis buñ ko validé rek ki di ya ak xadi dinañ sey suka su ko défé kër gi di commencé wat réglé wu comme nu mu waré léga ndax su ngeen xolé ki di faat bintu moom moo ubi buntu bi comme nak c'est normal ñeneen ñi tamit dal di sitagu, téggu comme nu mu waré su ma leen di ya buso mo ndar indi yaayam ba tégal ko ci loxo sadiq sama gaay ngene ngeen gëm bala ñu egg ngene nak dama leen di wax ngeen bëssi abonné bi té laal zem sama gaay balaa ñoo continuer ndax euh, on peut dire que nag kii di Bousso convoqué woon nañ ko fii euh, pour mu indi parent mi léegi mooy euh, temps yi nga xamante ne yaayam nekkutoon si gaale bi absenté woon na kii di Bousso nekkutoon à cent pour cent ba taxoon na nag mu doon absenté si la ko waa école am daal di dóoree benn convocation ñu bëri nag dinañ yaakaar que ni waxuma fi dara wala booba léegi leeraguma fi dara mais nag sama gars yi nga simple convocation boobu noonu moo nar rusloo kii di Awa Cheikh ndax mun nañu moom moo demoon bàyyi doomam ba mu nekk si ay situation ba waa école am daal di koy convoqué mais nag sama gars yi su ngeen xoolee Bousso ba mu indee li nga xam ne moo nekk convocation maire moo ngi ko doon wax lan nga def bañ la convoqué bis bu ko Bousso waxee que ni euh, sa absence moo taxoon nag ma daal di euh, planqué ba doon moo dem école sama gars yi loolu noonu yaay bu ñu ko wax sama gars yi di nga daal di euh, xam que ni carrément wax nañ la dëgg ndax kii di Awa Cheikh moo dawoon bàyyi doomam comme il est normal que ni doomam du nekk à l'aise pour daal di dem école sama gars yi point bu am importance laa leen jox noonu moo tax nag bu yóbbu ngeen bàyyi sa xel ndax loolu 掉了。